ñoo ngi àddoo fii ci mahad hikmatul yawmi li tarbiyal islamiya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadoul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 ci ñu bëgg ay leeral ngir andi fi seeni tuut tànk ñu jàng ci internat wu hikmatul yawmi bi ci Thiès tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci ko am solo muy kenn ci taalibe yi àndoon ak Serigne Touba. te nekkoon ab xakim ku bari woon xikma ñu koy wax sëriñ Malick Bassine si sëriñ Malick Bassine bokkoon na ci xikma yam waxoon dafa waxoon ne ku la jaay yett jëlee ko yet jëndee ko yet mu ne ku jaay ñetti mbir daal na nga ko jëndee ñetti mbir ba ci njëkk mu ne ku jaay xam-xam jëndee ko maandu ndax xam-xam boo àndul la ko maandu du teemoo yàlla ku jaay alal jëndee ko doylu ndax alal ju àndul ko doylu du tee sàcc ku la jaay juddu jëndee ko ngor ndax juddu bu rafet du tee dem kaso loolu nag day wax ju am am solo joo xam ne nii ku nekk war na koo mën a setantal ngir nga mën koo jariñoo bu dee bu njëkk bi xam-xam moom jër tëjaay ah ndax xam-xam moom benn mu doon bu am njariñ buy jariñ nit ki nit ki mën koo jariñoo wala mu doon safaan bo buy lor nit ki nga xam du ci jariñu du ci jariña fa la ilmu in lam yuxdi shaxsan beneen bi ci desit muy alal alal moom ah, boo ko jaayee ku doylu du safe ndax doylu rek am solo jamono jii nag day jamonoy alal joo xam ne nii nit ñi jàpp nañ ne lépp alal moo koy lijjanti dañuy dem ba borom alal sax bu waxee lu mu xamul sax ñu dëgg ko balaa wax jaa daanu ne wax nga dëgg am na bu bind loolu ne borom alal bu waxee lu dëgg sax ko dañuy daal gaaw dëggal ko ne wax nga dëgg waaye nee na ki ñàkk bu waxee lu wér sax loo xam ne caa teg bëtam moom dañ naa ko yow waxoo dëgg. li ngay wax dara wérus daal ci teg ne ay euh, ay dërëm de maanaam alal ci jamono jii ñu toll ci réew yëpp nag moom la nit ñi di wutee respect ak màgg maanaam ngir ñu respecté la te lay màggal jàpp nañ ne alal rek moo ko mën a may nit ci jamono ji ñu toll moo tax mu ne innal ganiya isa takallama kaziban qaalu sadaqta wa ma nataqta muxaala wa isal faqiru asaaba qaalu lam tusib wa kasabta wa kasabta yaxasa wa xulta dalala inna daraxima a lmawatini kullaha taksu rijala mahabatan wa jalala daal wax ne alal nag ci jamono ji bu fekkee danga mënta wax sax wala amoo fasaaxa wala soo làmmiñ daal wax daal yomb la na alal mën nga ci jënd ay waxkat yoo xam ne nii ay orateur lañu doon yu éloquent yoo xam ne nii la nga mënta wax lépp danañ la waxal lu kawe sa njort mu mel ni yaa ko wax teew saw làmmiñ du yëngutu mën naa bañ a génn ci sa gémmiñ mu ne ba tey boo amee aral boo néewee doole wala sax néewoo doole waaye daal tàyyi ngaa xeex nee na mën ngaa wut ay xeexkat yoo xam ne ni ñoom lu jëm si ci sa kaw dafa jaar ci seen kaw ba noppi te loolu wér la moo tax na faxiya lisaanu liman araada fasaxatan waxiya silaahu liman araada qitaala waaye bokk yi loolu lépp li ko ëpp solo mooy ak doylu ndax alal mënta jënd ñett alal mënta jënd gor doylu te doylu ga di lu wër ci moom eh, alal mënta jënd jaamu yàlla guñ la digal maanaam julli nga bañ a julli ngir nga joxe alal loolu alal mënu ko alal it mënta jënd bakkan buy rot bakkan bu toll ci rot lu alal bari bari bari bari bari mënu koo jënd ñetteel ba itam am na solo lool ku la jaay juddu jëndee ko ngor ndax juddu bu rafet du tee dem kaso loolu moom lu wér a wér la te lépp lu dul tee dem kaso fii ci àdduna du tee dem sawara ëllëg dafa naa juddu bu rafet mi ngi yem ci mbokk ak bi sallallahu alayhi wa sallam te am na ay mbokkam yoo xam ne ni ña nga sawara yonent yàlla nu alayhi salaam doomam ma nga safara juddu bu rafet mënta weesu loolu kon nag li am solo dañ koy nawee nit mooy jikko ju rafet jikko rek am solo sëriñ Malick Bass daal ci teg ne a ah, mën naa laa wax ko rafetub juddu kay koo xam ne kenn gënu koo rafetub juddu ñu ne kum doon mu ne mbaam mbaam léppam mbaam la baay ak yaay ak maam doom ak mbaam daal léppam mbaam la